Sénégal 4 TV yow yakum. ko ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu vous gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee la cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amaat nañu mbégte ak contentement dikkat ak yéen ci seen chronique di jour chronique du jour ngeen koy am ay bisi nekk ci site bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV di ci ànd ak seen mbokk seen xarit seen soppe seen doomu ndey Assane Dia alias Azou Pro mbokk yi tey seen chronique du jour ñu dikk rek bëgg def jàngat euh, ci coow ak werante bi nga xam ni am na ci diggante ñaar ñii nga xam ni ñoom la ñuy wax euh, Ousmane Sonko di njiital Pastef ak ki nga xamante ne nii moo di Bougane gay Dany euh, di njiital de médias ñu gis ni ay bisa a ngi nii ñu ngi jollante ay baat ci seen biir ñoom ñaar euh, ci sortie yi nga xamante ne nii kenn ku ci nekk ci ñoom mi ngi koy amal mu mel ni yëf yi mi ngi bëgg a nekk ak tontonte ci seen biir. commencé sax di rogalaat bay dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seen i jege ñaale waaye itam di dem bay àgg ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan wi leen safoo askan wi nga xamante ni ñoom ñoo topp ci seen ginnaaw euh, lu mel ni ay xeeti gënalante waaye itam lu mel ni ay xeeti werante ak i jollantey baat rawatina ci internet bi boo fa demee da ngay gis ni euh, tension bi mu ngi commencé di yokku euh, ndànk-ndànk ci diggante ñaar ñooñu euh, rawatina ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seeni sympathisants yu topp ci seen ginnaaw waral tey ñu ñëw rek bëgg ko teg ci kaw table bi joxe ci suñu point de vie personnel ak itam naka lañ ko jàngatee lan moo ci suñu xalaatu bopp permettre la aussi yow mi nga xam ni yow yaa toog di ñëw seetaan yow itam nga daal di mën a joxe sa xalaat ci nan nga jàngate coow li nga xamante ni dox na ci ñaar ñoo xam ne nee nañu euh, li ñu bëgg ci Sénégal benn rek la nee nañu ñoom ñoo bokk gëm-gëm bi euh, li tax ñu yëngu lépp moo di indi ak yokkute ci sunum réew naka la ñu def nag ba coow li am naka la ñu def ba lii nga xamante ne moo di xiiroo bi ak mballoo beeg werante bi am ci seen biir ñoom ñaar loolu lañu daal di bëgg teg ci kaw table bi daal di koy waxtaanee ak yéen donc yow mi nga xamante ne ni yaa ngi ñuy seetaan ci Sénégal 4 TV nga bëgg ci joxe sa xalaat moo xam nga d'accord ak ñun moo xam itam sa xalaat uute ak sunu bos ubbil nañ la bunt bi car Sénégal 4 TV ci wàllu démocratie la ñuy dox donc saa bu la soobee mën nga jël numéro Sénégal 4 TV di 77. 507 27 29 su ko defee nga daal di ñuy envoyé foofu li nga xamni ay ah, yow moy sa xalaat ci mbir mi situation bi biñu koy jangat da ngay gis ni euh, d'abord bu ñu jëlee ay kàddu yi ki nga xamanteni ne nii moo di Bougane Gueye man damay wax ni à toute sincérité bugan daf ma bett li tax ma ni Bougane daf ma bett moy dafa am dafa am fofu sori fu mu ko tegoon dafa am fu ma ko doon séentoo moom Bougane euh, ci sortie yi nga xamante ne nii mi ngi ko doon def auparavant euh, ci ci jamono surtout avant que ñuy agsi ci jamonoy élection présidentielle yi euh, ñeme naa sax wax ni bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo gagné sama confiance ci seen i wax ci seen i façon de faire ak itam ni nga xam ne noonee la ñu doon amale seen i dialogue ci bu ñu koy bu ñuy bu ñuy waxtaan ak askan wi mais ñu dem ba ci biir ci moment bii nga xam ni. mbënd moo am senegal tey mën naa wax ni cinquante pour cent wu quartier yi nga xam ne daawuñu taa sax daawuñu gis ndox sax ren dañu inondé donc besoin bi soxla bi dafa gën a yokk ci askan wi ñu soxla seen dimbal soxla seen présence soxla seen kàttan waaye soxla seen xalaat ci moment boobu ñuy gis ay gaaruwaalante ci ñaari kilifa yu toll noonu jëf naa xanaa waroon naa mën a yem ca la ma jëf mais ñu gis Bougane Gueye di def ay sorties ci ay video yu ndaw naan fu nu soxlaa jëf boo amul loo jëfe lenn rekk ngay daal di ittewoo mooy nekk sa mbir mooy di wax muy waxub gaaruwaale vraiment image Bougane ak personnalité Bougane defe woon naa ni man Bougane dépassé na ay affaire de gaaruwaale yooyu même bu fekkee ni Ousmane Sonko la même bu fekkee ni keneen ak keneen ak keneen la mais beneen bi ma ci gën a jaaxal mooy Ousmane Sonko ci boppam personnalité bi mu am dignité bi mu am ak fi mu fi fi fi ni mu ñëwee ci biir xolu askanu Sénégal defe woon naa ni bu kilifa doon génn di ko tam dëmm sax moom dana utiliser armu pat nit nañ toll ci besoin nga dem fa ngir jàppale leen nga dem fa ngir ànd ak ñoom ci tiis wi ak naqar wi amuloo doole waaye ñëw nga apporter sa soutien mooy sa présence ñëw na def nga itam la nga xam ni am nga ko ci sa kimtalaayal kattan buñ la gaaruwaalee ni defuloo yaa ngi wax neel pat mais nga bëgg a régler problème bi ci ay conférence de presse tey tolluwuñu fu ñu soxlaa ay wax dañu toll fuñu soxla ay jëf pas ay tontonte mu am ci loo xam ne nag faw sénégalais yi comprendre ko ko comprendre rek toujours ci yu mel lañu dëkk ay ay xiiroo ci suñu biir te te te je me dis que ni sax au finish ñi tax def ko je pèse et bien mais jaruñu ko mu def ba taxaw di bàkkoo ni man mu am ban sens ban sens la am ci ko xam ne yàlla nakkal na la géejal la lu dul jeex nga dëju ci ngay dem di joxe ji parce que ñoom ñëpp il faut que ñu xam ni defuñu te yàlla tax defuñu te yàlla tax c'est pas parce que dañu am yërmande ci askan wi naaw il faut que sénégalais yi comprendre loolu man bu ma amee yërmande ci yow am ñeewantal ci yow ñëw di la jàppale danaa def sama kéemtalaayal kattan ba kenn du ko yëg mais def bo xamni ni da ngay contacter toutes les sites internet du Sénégal pour ñu ñew jël sa manifestation pour ñu ñew filmer la duggal ko ci internet bi duggal ko ci télévision yi pour wane ni yaangi dimbali waté bo waree dem ci place pour waté sax da ngay utiliser sa radio da ngay utiliser sa télévision pour ñu def communication ci lool pour xam xam leen ni yaangi dem place sangam pour dimbali ay nit ani yalla politique lañ ci def ani yalla tontu bi nga xamni mom la Ousmane Sonko di tontu ki di bugan gay dani mu tek ko ci lan mais politique jamono bi nit ñi di dund ci ndox mi di di fii ci bir ndox mi pour meuna genn dem doxi ji seeni soxla nga dugg ci sa place parti wo presse bi ñu ñew ngay def conférence de presse conférence de presse lu mu man ci inondation conférence de presse dañ ko soxla ci jamono inondation mu wundu fa lan nga tok wax fa lan lu mën a sénégalais yi yow son ko ngay def conférence de presse ci jamono boo xamante ne ni nit ñi ñi ngi soxla ak ndimbal daar daar daar daar naka la ñuy def pour génn ci situation actuelle bii ñuy dund nga woote conférence de presse au nom de quoi malheureusement ñi nga xam ni ñoom ñoo leen dar ñi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak ñoom duñu leen faral di wax dëgg duñu leen joxar bi baaraam di wax ak ñoom li nga xam ni mooy besoin wu sénégalais yi mais non dañuy topp ci seen ginnaaw lu ñu def ñu ni gongo et c'est malheur il faut que jeunesse bi yeewu ci genre situation yu mel non. il faut que jeunesse bi conscient ci li nga xamanteni ne ni noonu la sunu way politique di dunde ak ñun il est temps que ñu yeewu ci lu nu mel que ce soit pouvoir que ce soit opposition wala leneen ak leneen ak ak il faut que ndaw ñi comprendre loolu ñoom la ñuy utiliser après ñoom la ñuy utiliser seen i wax ñoom la ñuy utiliser seen i xalaat def débat def polémique ci réew mi ñëpp di ko waxtaane malheureusement ñi nga xam ne yow wuñu ñoom ñooy dem ci réseaux sociaux yi di fa werante ba seeni dënn di jóg di saaga dem sax ba ay saagay ndey di ci am dem ba ay werante yu tàng tàng tàng di ci am ëllëg boo dajantee sa mbokk wala sa xarit ngeen doon werante ndax ñaar ñi taxoon ngeen di werante ruus képp ngeen ciy jëlee gàcce képp ngeen ci jële bul bu benn waay politique jaral la ngay noonoo ak sa waay mbaa ngay noonoo ak sa xame ëllëg da ngay am kersa te waay politique yi li ñuy def ni defuñu ko lenn lu dul seen intérêt yi bopp képp lañ fi nekkal seen intérêt yi bopp képp lañ koy defee képp ku ci jël ay millions dem naan yaa ngi koy joxe sinistre yi woo ca média baak lépp la nga ca bëgg mooy visibilité ngir bu ëllëgee ñu ne waaw buggaan a fi defoon nangam buggaan a fi defoon nangam buggaan a fi defoon nangam loolu képp a tax ñu di ko def boobee ba nëgën ni Sénégal ci ay guute yu méttee méttee méttee ñu di ko dund kenn déggu leen ñu wax ci tey situation am na ñoom ñëpp ñuy profité waale ci occasion bi pour marquer seen empreinte pour yokk seenu tur pour nit ñi ràññee leen pour des ci xelu askan wi il temps que jeunesse bi yow ci situation yu nu mel il est temps que jeunesse su Sénégal ñu yow xam politique bi ni muy doxee naka la ak nan la. mangi ngi jégaluwaat bu baakha baakha bax ci vidéo bi nga xamné xawna guddou touti mais c'était juste rek il fallait que ma joxe man ni nga xamanteni ni non la jàngate coow li ni nga xamanteni ni aussi mo ci sama point de vue personnel di touba tay jégalu bu baakha bax lépp luñ ci wax muy njariñ ngeen xamné ndimbal ak katan ak borom bi la doon amé waye luñ ci wax itam muy safaan ni ngi koy tuub di ko sunu suñu gàtt xam-xam la rek ak suñu bëgg a jag-jagalaat bëgg defar bëgg ndaw ñëpp yewu képp luñ ci djublu won di leen jox dig daje inshallah rabbi suba ci benen vidéo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ताली व बरकत हो